monsieur président ñu ngi lay nuyu di nuyu monsieur le ministre ak mbooleem ministre yi fi nekk ak ñi nga àndal ñëpp di nuyu sunu bokki député yi euh, man monsieur le ministre euh, samay wax dama koy tënk ci ay kàddu yoo xam ne yu am solo la te lu intéressé sénégalais yi la ndax tey dama tiit tey suñu ñëwee ba ci assemblée nationale am ay nit yoo xam ne dañuy tuddoo ay kilifa diine lañ mën a taxaw di défendre ay nit yoo xam ne dañuy saaga kilifa diine yi loolu dama yaakaar ne kersa la ci am réew tey dama jàpp ne dañ la waroo xam ne la ci bo tey ji ci loi bi ñu bàyyi ci xel nga dugal ci ñi nga xam ne dañuy attaqué sunu kilifa diine di leen wax lu ñaaw tey boo xoolee tey man dama jaaxle boo seetloo dafa am ay kuréel yu judd ci dëkk bi di tudde seen bopp ay kuréel yoo xam ne dañuy xeexal askan bi mais kuréel yooyu boo ci xool rek politique a làqu ci ginnaaw ndax li ma mënta comprendre société civile boo xam ne bu opposition bay wootee ndaje nga dem bu état bi wootee waxtaan doo dem boobu société civile nu mu tudd dama comprendre di société civile boo xam ne dañu ne dañuy xeex lu jëm ci wàllu góor jigéen ñu gis benn benn waay boo xam ne mooy waa mouvement waa mouvement euh, yolom géño muy mouvement yolom géño bi xam nañ ñi may wax mouvement Yolam Guédiawaye bi di organiser ay programme yoo xam ne ñu leen di jox ay alal ñu leen di jox alal jóge ci bitim réew ñu leen di jiiñ ay ay ñoo xam ne ay ay ay ay ay góor jigéen lañ ñu leen di jàppale tamit li ma jaaxal mooy ñii xeex ne dañuy xeex ñii xeex li ñu wax nitu dëgg ne dañuy xeex dëgg ñu ne dañuy xeex euh, rafet jukko defar jukko yi ñooñu ñu ci seen biir ñenn ñi dañu saaga kilifa yi ñenn ñi am nañ ay financement yoo xam ne ay góor jigéen leen ko jox ñenn ci seen biir dem ci ay ay ay ay salon ñu bës leen ban lañ leen fay jiiñ ñu jiiñ leen ko ñu violé ay xale ñu ñu ñoom ci seen biir ñenn ñi ay tuxkat yàmbaa lañ ñenn ñi dañuy jaay dorog mais ñooñu war nañoo xool ñan la ñooñu seen jukko yooyu lañ war a defar man dama mun te comprendre loolu te li ma bëgg askan wi xam ko mooy dafa am loo xam ne nit ñi dañ koo xamul man li ma comprendre mooy président de la république tey kuy xeex góor jigéen moom nga war a wax ci moom nga ci tàmbali ci la tàmbali ay nit yoo xam ne président de la wax ay kilifa ne réew mi fii maa ngi fi góor jigéen du fi am mais lu tee ñoo ñuy wooye seen bopp kilifa dina ñu tàccu président de la ne ko li nga wax lañ soxla ñu rik kerewaat ay kuréel di wax naan dañuy xeex góor jigéen fan lañ ko teg est-ce que du ñoom dañuy publicité góor jigéen attention ah, parce que góor jigéen nit ñu waxtaanee tuñ ko ci saali du màggal du gàmm fenn fu ñu koy waxtaanee. te góor jigéen ñi fi ne dañoo bëgg publicité seen bopp est ce que du ñooñu dañoo jox xaalis pour publicité góor jigéen ñi lu mat a ba xel na mais monsieur le ministre beneen bi ci topp mooy réew mi nu mënuñu comprendre ay nit di jóg di ko taal di taal alali jàmbur tey ñiy coow fii koo ci xool mooy nit ñi nga xam ne seen alal tàkkut mais tey ñeenti junni nit yi nga xam ne dañ doon liggéey ci Auchan wala Total ñu taal seen yàq seen liggéeyukaay liggéeyuñu ñooñu du duñ wax ne loi bi du jàll ñooñu arrangé na ñoom ñii nga xam ne nag safuñu jën safuñu yàpp bu tayee ña ngi ànd ak góor jigéen ña bu tayee ña ngi ànd ak euh, ña nga ànd ak massage kat ya bu tayee ña ngi ànd ak waa yolom geño kenn xamul fu ñu far yolom geño tey waroon naa toog fii dégg li ma koy wax li ñu soxla ci moom mooy Adji Sarr lan la séq ak moom Sénégal yi loolu lañ bëgg a xam mais musulmi li leen ñu Adji Sarr nañ ko atte nit ñi xam li xew sonn nañ ci sonn nañ jigéen ñaa ngi bëgg a dee actuellement ku ci ne yaa ngi jël sa njaboot di ko làkk dimbali leen ñu ñu xam yaloom géñoo lan la seq ak Adji Sarr mais ñi nga xam ne neex a dëkkal lañ tudd seen wax kenn waxu ko ñun toppatoo wuñ leen monsieur le ministre sénégalais yaa sa kanam sénégalais yaa ngi sa ginnaaw loolu lañ bëgg nga xam ko te bàyyi ko xel maa ngi ciy profité di nuyu soxna astu Mbacke mi nga xam ne moom moo fi setu sëñ Touba doon léppam sëñ Touba maa ngi koy nuyu parce ba place ñun dañoo yeyoo ku la fa gën a jege sañ Touba doon fa sam sëñ Touba soxna Astou moo fi samam sëñ Touba parce que moo fi gën a jege sëñ Touba ndax yaayam baayam sëñ Touba ko jur ay laa ko gën a wax kon nag président ñu ngi lay sant di la gërëm ci taxawaay bi ñun ñëpp de am nañ lu ñu jàng ci yow jërëjëf. merci beaucoup cher collègue la parole